Sénégal ak CEDEAO day ah waaye dëgër bopp baaxul bettul kenn tribune yéene kaa ne dogal bi nga xam ne nag maanaam waa CEDEAO daal dinañ ko génnee day ngir ñu jëlee fi wàllu parrainage ba waaw Sénégal daal ah xamal nañ waa CEDEAO ne leen dem leen toog eh way Samba dama ne la Omar Gueye ministre waaw nee na gis nga parrainage bi la moo gën a jaar yoon kaa ñu jaar yoon sa parrainage est plus que légal ah, ah, waaw Omar Gueye ne gis nga parrainage bi la mais jékki-jékkiwul jóge ci asamaan sa wàcc porte-parole gouvernement bi day waaw nee na ci boppam état de droit la état wu démocratie fanweer ak juróom-ñeent ci ay candidat danañu ko am ci élection présidentielle bi la bëgg a voté ci benn fan kese boog soobi li ne nguuru Sénégal ga day tontu nañu waa CEDEAO réew mi quotidien ne dindi fi wàllum parrainage googe waaw Sénégal day nee na CEDEAO dem leen toog maître Abdoulaye Tine ci vox populi waaw nee na fi mu nekk nii ne ak lii CEDEAO wax jëlee fi bi ñaar nag ñoo a am nag laa bu njëkk ba mooy Macky Sall dafa war a tekki a a organiser sa sa sa élection présidentielle anticipée yoo xam ne moom du ca parce que nag fàtte xaju fi lu yàggul dara réewu Gàmbi gi ngir jëlee fa njiitam di président Yaya Jammeh waaw waaye ci ab kayit la CEDEAO daal di kon sukkandiku moom Sénégal ak àngooram gi daal di fay dugg jëlee fa Yaya Jammeh dégg nga maître Abdoulaye Diouf ñemu ca ndaxte nee na léegi kon Sénégal kii warta ràcc jëmale ci côté mu dëll laa wax di def def lu kon ay mbirum jaay doole loo a day maar day taal waaw waaw te laaj bi day mooy est ce que Macky Sall gouvernement ngam bii danañu a dogal bi nga xam ne moom la CEDEAO jël maanaam jëlee fi parrainage bi maître Abdoulaye Tine ne en tout cas laaj woowee du neex a tontu de déedéet parce que Macky Sall gouvernement ngam bi tàmmal nañu lu CEDEAO wax ñu daal di faxas teg ne ku laajal dossier Karim Wade bi la ak dossier Khalifa Sall fan la mujj ak la ca CEDEAO xool Sow APR ca yëmbal ci 24 heures dénk nañu en rapport provisoire bi day ci lakk ga am sa hôpital Magatte Lô ca Linguère ah ministre bi day nee na sagante la ba ay doomu aadama dee ca négligence mortelle la Abdoulaye Diouf de démissionné wul de dañu koo dàq la <laughs> ilaha ba l'observateur ne waaye hôpital Fann ngay bañ ah nees tuut musiba mbaa ba kumba boo xam ne kon am ci hôpital Fann gii mardi tali parce que Sowetaas ñi nga xam ne dañoo am corona nekk ci diggante dund dee service rea waaw da doon lakk de mar d'Italie la ilaha illallah Kolda démb lakk na laas waa xam ne kon dañ doon marche hôpital régional ba ca Kolda waaw waaye police ba daal amul dara lu mu def lu dul jël ay grenade lacrymogène kon daal di koy sànni waa kër docteur yooyu te ñooñee doon manifester day ca gouverneur lañ bëggoon a dem ngir yeggee ko kon seeni doléance police ba koy foqati ca waa kaw ga waaw ndengaleer day la fay xeeñaat neexul de la fay xeeñaat neexul de maar di tali wéy parce que daf cee am nag juróom benn ci ay baykat yoo xam ne day dañoo jékki-jékki ci nii wala ca nee waaye Babacar Ngom sédiment tamit day banque loxoom de déedéet dama ne njaw laa ngay weeru de suuf xammin chef de village ba ca boppam ko nee na amul bay baykat ya nee nañ danañu dellu so ci toolu baaba ngom yooyee yéeni kaa gi ne waaye xoolal ma geneen coowal suuf suuf nangu suufu jàmbur ci lu jaarul yoon waaw ab titre foncier mairie bu Pikine bële nga xam ne Abdoulaye Ti moo ko jiite lu tolloo juróomi téeméeri million genn wàllu milliard lañ leen daal allahu akbar la ilaha illallah abarsenal ak Abdou Sancerre waaw lañ ñëw ne déji ci terrain wu jàmbur balaa la wax lii luy ndeyam nag la ko ne en tout cas fête travail premier mai suba la waaye mbir mi li muy xeeñ neexul wutal nit ñi liggéey rek la gars yi di kaas ñi nekk nag ci wàllum secteur informel bi la ak tourisme bi bu baax syndicat journaliste yi nekk ci njàng mu kawe mi tamit yëkkati nañ seen kàddu de ci 24 heures yëkkati nañu lu mel ni xamee Cheikh Oumar an laa la wax waaw waaw laas werante bi nga xam ne moo am ci mbay mi dox naag doxul dawaa si ndaas yëkkati lu mel ni xamee ministre Moussa Baldé waaye ministre Moussa Baldé tamit daal dina tontu de tontu sax sax parce que ministre mbay mi la Moussa Baldé nee na Sénégal li mu am ci résultat ci campagne commercialisation gi la 2020 2021 mësu koo am nag laa la wax Moussa Baldé ne waaw lu tolloog 721 386 la ñu dajale fanweeri fan ak ñeent fukk ak ñett 143 jours kese direct news ne financement au day nasaraan jox nañ Sénégal lu tolloog ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards accord bu bees Dakar Times de al kay ginnaawam bandang bandang ndawi milliard waaye démocratie bi lu yàlla xam doy na termine yéene kaa ne moo taxee Barthélémy Dias day waaw daal dinay bind nag ab leetar benn attaqué bu nekk ca diwaanu la nga xam ne daal seen yéene mooy indi waat Ousmane Tounkara fii ci Sénégal mar di tali waaw dañ koy tuumaal ay mbirum terrorisme yooyu ay waay daal xamal na attaqué ba ne ko Macky Sall suñu président ñin Sénégal li ko teree nelaw daal jàppantaloo ay mbirum yu kenn xamul ci noonee la tëjee Khalifa mi la ci te noonee tam la ñu jëlee Assane ci réew mi la di ko jéem a toroxal def ko ay jëf ñaaw loolee nag monsieur le la Macky Sall mi kon bëgg a def Ousmane Tounkara te Ousmane Tounkara mi nekkul terroriste benn yoon laa wax rimi yéene kaay coowal lempo gi la day ak bari dool waa forum civil bu Ibrahim Seck la ñuy sàkku daal mooy nasaraan boobee na daal di nag versé cent vingt milliards nguuru loolooy dëgg réew mi quotidien ne xaalisu moto jakarta ya quatre cent cinquante millions waaw jakarta man bu nekk day ñeenti junne ñaari téeméer nga vingt et un mille ñamee wuñ ko tribune yéene kaay ne ñoom ñoo di dawal moto jakarta yi day toll nañ ci ñaar fukki junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent vingt mille cinq cent soixante quatre conducteurs ku ne ñeenti junni ak ñaari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 dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablet mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ité bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.